pour un Sénégal souverain, juste et prospère. Dès votre installation, vous avez bien voulu nous faire l'honneur de nous confier la passionnante mission d'opérationnalisation des idées innovantes que vous y défendez, pour une rupture qualitative et profonde. Il s'agissait pour vous de poser les fondations d'une transformation systémique par des solutions durables, non pas passées non pas pensée dans le mode fast-track, mais qui repose sur une vision à long terme, qui transcende les clivages politiques pour refonder le Sénégal sur des bases solides et durables. L'équipe de conception, composée d'experts de la primature et du ministère de l'économie, du plan et de la coopération, s'est immédiatement alors mise en place sous la direction du ministre de l'économie du plan et de la coopération et du ministre secrétaire général du gouvernement sous ma supervision. À cette équipe est venue s'ajouter l'expertise du cabinet Performance, qui, dans un élan patriotique, et venu offrir sa contribution à cette phase d'élaboration du référentiel. Ce groupe de travail s'est donné corps et âme sans répit durant ces quatre derniers mois à organiser des retraites, des veilles pour aboutir au résultat qui nous réunit aujourd'hui. Les choix d'élaboration de ce document reflètent les options fortes de son Excellence, Monsieur le Président de la République, de faire confiance à l'expertise locale, d'une part, et d'impliquer davantage le secteur privé national dans toute définition et exécution des politiques et programmes publics. Le diagnostic stratégique qui a découlé de ce travail pour notre pays pourrait se résumer en quatre grands mots. Notre modèle ne crée pas de valeur, une croissance d'à peine 0,4% en moyenne du PIB, e une gouvernance qui ne favorise pas l'éclosion, 10 entreprises pour 10 000 habitants au Sénégal contre 500 pour 10 000 au Maroc, et 709 pour 10 000 à Singapour. Une population active mais peu productive, 80% sont des ouvriers, commerçants ou artisans. Les privés, le privé génère deux fois moins d'emplois que le public. Un modèle social inéquitable. 4 Sénégalais sur 10 sont pauvres. Et à l'indice de développement humain, nous sommes classés 169e sur 192. Voilà sommairement dressé les mots dont souffre notre pays, ce cercle vicieux de dépendance et de sous-développement nous a maintenus à la lisière des trajectoires vertueuses qu'il nous incombait d'emprunter ces dernières décennies. Nos experts y reviendront plus largement lors de leur présentation. Nous savons hélas que nous ne pouvons plus revenir en arrière, mais nous pouvons prendre un nouveau départ. Commencer à partir de maintenant. et emprunter une toute nouvelle trajectoire librement choisie, partagée et assumée. C'est la haute et noble ambition fixée par son Excellence le Président Bassirou Diomaye Diakhar Pour y parvenir, nous ne ferons plus comme avant, courir d'une réforme à une autre, d'un projet à un autre, touchant à tout, laissant bien souvent par-ci, par-là un goût d'inachevé et toujours dans la précipitation électoraliste et le dictat du prochain mandat. Nous avons pris le pari d'adopter un nouveau modèle de développement sur le long terme, reposant d'une part sur un État stratège qui favorisera grandement le développement de filières compétitives, de pôles territoires viables, avec des villes épicentres et un secteur privé national fort. Comment y parvenir? Notre approche repose sur une transformation systémique, incluant bien entendu une plus grande responsabilisation de nos concitoyens d'ici et de la diaspora. À l'instar des économies qui ont décollé, nous développerons quelques solides moteurs de croissance sur lesquels nous appuierons pour créer une économie compétitive, gage d'un Sénégal souverain, juste et prospère. Nous l'illustrons en vous présentant l'arbre qui symbolise et synthétise notre vision 2050. Voici le baobab, emblème national. Quatre parties principales composent cet arbre majestueux, familier dans nos paysages. Des racines, un tronc, des branches et des fruits. Voilà, mesdames et messieurs, les quatre axes stratégiques de l'agenda national de transformation du Sénégal. Notre baobab repose sur de solides racines qui représentent la bonne gouvernance et l'engagement africain. jubbal ak jubbante loolu mooy indi jàmm ak dal ci loolu itam lañuy gën a dooleel lëkkaloo gi am ci suñ diggante ak yeneeni réewu Afrique yi ñu mën a àndandoo liggéey ngir mën a yegg ci mébét yi ñu bokk Et le solide tronc du baobab représente aménagement et développement durable. aménagement et développement durable mooy fexe ñu mën seddale tabax yi ak service yi ci diwaan yépp su ko defee gox bu nekk mën a yokk ci anam wu dëppoo ak liñ ba bët dafay ànd ak tabax dëkk yu méngoo ak sunuy bëgg-bëggu ëllëg ci jamono jooju faawu ñu aar xeewali jaww ji ngir ñu bañ a jeex boole ci defar dëkk yu mën a dëppoo ak bëgg-bëggu tey te bañ a sànk ëllëg. Mesdames et messieurs, les branches fournies représenteront notre capital humain de qualité et la garantie de l'équité sociale. Capital humain de qualité et équité sociale. maanaam gën a sukkali njàng ak tàggat ngir jox askan wi xam-xam bu am njariñ ba noppi ñu gën a yemale askan wi ku nekk mën a am paj ak kaaraange bu ko weesoo ñu fexe ba kenn bañ a des ginnaaw ci yokkuteeg réew mi. Et les fruits enfin qui représentent notre option de bâtir une économie compétitive. économie compétitive. li ñu jublu mooy Sénégal bu moom boppam jub te am naataange ànd ak koom-koom gu am taxawaay. maanaam sos koom-koom gu mën a joante ak àddina si loolu dina gën a dooleel barabi yokkute yi gën a yombal liggéey yi gën a yombal dundinu askan wi su réew mi jàppale secteur privé bi mu am doole ba noppi fexe moom boppam ci wàllu koom loolu dina tax alal ji am njariñ ci askan wi ci noonu lañuy gën a yombalee ay liggéey ak ay gis-gis yu bees ci dëkk bi chacun de ces actes de ces axes qui vous sera détaillé tout à l'heure constitue un pilier sur lequel on pourra s'appuyer pour arriver à un Sénégal souverain, juste et prospère. La nouvelle stratégie de développement pour les 25 prochaines années, grâce au scénario de, scénario de rupture que nous proposons, devrait donc conduire à terme à récolter les fruits de notre baobab. Un Sénégal souverain, juste et prospère, c'est une nouvelle trajectoire de développement, c'est des moteurs de croissance en pleine expansion, C'est enfin une nouvelle carte économique et de nouveaux corridors. Monsieur le Président de la République, distingués invités, il ne me reste plus qu'à laisser la place à nos experts pour vous fournir plus de détails sur le nouveau référentiel. La présentation se fera en trois étapes. Le diagnostic, qui sera introduit par M. Cheikh Moudou directeur de la planification au ministère de l'économie, du plan et de la coopération, La vision 2050 par M. Victor Ndiaye du cabinet Performance, la déclinaison quinquennale et le cadre de mise en œuvre par M. Souleymane Diallo, directeur général de la planification et des politiques économiques au ministère de l'économie, du plan et de la coopération. Suivra ensuite le panel qui permettra à quelques discutants de donner leur première impression et à une représentation du gouvernement de répondre éventuellement à leurs sollicitations. Et on souhaiterait aussi que le panel se passe en langue nationale ou alors que ça passe d'une langue à une autre pour qu'il soit le plus inclusif possible et que pour, pour que le maximum de Sénégalais puissent euh, comprendre les enjeux de cette journée. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre, pour cette euh, belle introduction